ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu la notification. Euh, li waraloon ndaje bi tey mooy le mouvement waa gox bi euh, dañu ñëw pour def suñu déclaration euh, ci situation bi nga xam ni fii la Sénégal toll muy la situation politique bi tax. ku nekk nga war a mën a exprimer sa position par rapport ak lii ñu dëgmal muy les élections du 25 février 2024 Sénégal suñu réew war a tànn njiiti réew bi nga xam ne moom lañ jàpp ni moo gën ci réew bi moom lañ jàpp ni moo gën ci li nga xam andi changement bi ñu le mouvement citoyen pour def suñu déclaration wax sénégalais que dañu choisir ki nga du candidat président Ousmane Sonko def ko sunu candidat fas ko fal mu le président de la République du Sénégal au soir du 25 février 2024 Inch'Allah. allah. waaw li tax ñu porté sunu choix ci Bassirou Diomaye euh, Sénégal dafa nekk ci à la croisée des chemins Madame Rémy mi dafa toll situation boo xam ne euh, da ngay wax dëgg rek wala nga wax safaan wa dëgg nag mooy fii ñu

à l'interne daf ay session yu bari waxtan ak ñi nga xamni ñom ñoo mouvement bi nek ay cadre nek ay ay ay ay kilifa ay ay ay ci li nga sur le plan local sur le plan national sur le plan international partout dans le monde ñom ñep ñu mengo joxe sen cadeau teunk ne ki nga xamni le candidat le candidat le mieux placé aujourd'hui pour diriger

tey kon partie bi moo ñëw fii ci Pikine Djiddah Thiaroye kaw rencontrer le mouvement gox bi nga xam ni dañu jël décision soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye muy candidat bu yaru candidat bu am fula candidat bu am fayda candidat bu am jom candidat bu am fit muy ko nga xam ni wóolu nañ ko pour Sénégal ndax kat toll nañu fu nga xam ni jeunes yi ñu ngi quitté problème yi bare na bu ñu tollee fii defe naa ni premier militant wu Diomaye Faye moo war a nekk président Macky kon tay war nañu taxaw wër ci Sénégal fu nga barki dem Jurbel ku mouvement képp ku association ku on est dans le système du numérique je crois que ñu ngi jot ay xibaar yu ci ay nit yu nga ñu ngi rejoindre rejoindre la coalition rejoindre Cheikh Tidiane maa koy gërëm tey dégg naa mu ni mooy Cheikh Biram Cheikh n'est-ce pas Birame Soleil moy Diomaye Ma El Malik moy Diomaye Diomaye moy Ousmane Sonko waxon na len que nous sommes experts en matière de jeu et nous gagnerons inchallah le 25 février 2024 euh, merci beaucoup. kii man ak pendant cinq ans ñoy bokk ben lal bu ñuy à l'université on a mené ensemble toutes les batailles lui aussi il, il était là pendant ces batailles là donc on a mené toutes les batailles syndicales à l'université mm-hmm. et euh, à travers ces batailles-là que nous avons menées, Moussa Abba a activement participé à ça. Et d'innombrables étudiants et étudiantes ont joui de ces combats-là que nous avons menés à l'université. Mm. On a logé des centaines et des centaines d'étudiants mm. qui étaient dépaysés, mm. qui venaient de villages très profonds de ce pays-là et qui n'avaient pas de parents à Dakar. On les a trouver des logements mm. à Dakar et on les a euh, euh, fait fonder des foyers euh, pour se sentir à l'aise au niveau de l'université. Mm. Et on a contribué mm. à trouver des bourses pour d'innombrables étudiants et d'étudiantes à l'université de Diop. Ce qu'on a fait avec Moussaba en tant qu'acteur dans ça, et pas des moindres à l'université, donc lolu su fait qu'elle euh, vie boobu dafa ñëw mm-hmm. indi ko dans sa communauté mm-hmm. di servir pour sa communauté dafa don juste li nga xamné c'est une continuité xam nga wa koñ bi mm-hmm. ñom la juddandool magor, màggandool mais amna ben parenthèse de sa vie bo xamné nit ñi wuñ ko c'était à l'université dañu jékki-jékki gis ko mu ñëwaat donc c'est important nous en tant que ses camarades étudiants au-delà de la politique ñu ñëw ne len kat Moussa Ba limu mu fi université au delà des études cours yi mu doon jël. Mm. du leadership. Mm. au niveau de l'université au niveau du LUCAD. mu mokkal ko ñëw nag di ci biir communauté mm. donc PASTEF vient d'avoir un allié de taille. PASTEF vient d'avoir un membre incontournable. qui a ne sa xam sa engagement surtout. ak euh, sa savoir-faire. en termes de lutte kenn mënu ko naatable te soo indé en contribution di nga ko indi foo xam ne soxla nañ ko. Mm. di nga ko indi foo xam dinañ ko déglu. te mm. dinañ ko mën a appliquer. Mm. donc encore une fois félicitations à toi. félicitations à tout le mouvement. Euh, parce, que, et, comme, parce que je ne peux pas ne pas parler. je pense que Moussa euh, Moussa ñun ñëpp xam nañ ko. Euh, comme Moussa Touré nu mu ko waxee. c'est un acteur de développement en réalité man je le vois pas comme un homme politique c'est un acteur de développement Madame, lépp luy jëmal mbir mi kanam dans tous les dans tous les domaines ah, mon, tu ci la ci tu je lui ai tendu la main il y a fort longtemps man kay Pastef laa koy xaar en réalité mais comme il est notre allié présentement avec euh, mouvement waa je bi loolu man sama xol da ci gën parce que man je sais de quoi ils sont capables Non, c'est un terroir man donc moi, j'ai misé de toute influence possible. Pour vous dire la vérité, je viens, il y a pas mal les Yacine Fall, tout ça là, ils ont. c'est donc insister parce que man en réalité c'est ce je te ça vous pouvez nous mettre en contact avec d'autres personnes mhm. parce que lu ñuy en réalité ce n'est pas uniquement pour le PASTEF mhm. du mbirum Ousmane Sonko Kessé. Mhm. lii mbirum Sénégal c'est le développement du Sénégal en réalité qui nous préoccupe tous Vous gis nga rendez-vous bi nii waruñu ko waruñu ko et heureusement il y a des gens comme vous qui ont compris en réalité qu'il y a urgence. Quoi. Donc, content à trop, mm je suis très fier et ravi de te voir auprès de nous. Mm -hmm. Et je sais que le quartier, je peux confier à Moussa Touré.